saana ilaahi bil munaajihati yéen mbokk yi Africa Tuile-Caro ñëw na ci réewu Sénégal nekk fee ca Soprim extension villa numéro 264 ci wetu rond point di spécialiste ci bépp xeetu tuile boole ci tamit caro di représentant exclusif bu industrie Coto Posagno nekk feete Italie di jaay ak ay tuiles yu am lool qualité baax lool ci seen kër di leen defal fourniture ak éventuellement livraison ci fépp fu ngeen dëkk ci biir Sénégal Africa Tuile ak Caro tamit am na personnel bu xereñ lool nekk seen disposition 24 heures ak 24 Africa Tuile ak Caro ma nga nekk ca parcelle Assainies Soprim extension 50 mètres balaa nga yegg kaas ba képp ñi nga xam ne nag dafa bëgg a jokkoo ak Africa Tuile ak Caro na jël ni xeetu numéro téléphone yi muy 77 510 81 52 wala 33 835 47 28 site web ba di Africa. tirer tuile ak Africa tuile ak caro ci biir réew mi seen coono jeex na ci wàllu tuile ak caro asalaamualeykum mbokki Touba seen champ di réseau de supermarché bii nga xamante ni mi ngi bàyyeekoo si société d'investissement Mouride Rital Holding SAS seen supermarché bi nga xamante ni moo jóg taxaw tem indil leen lépp lu ngeen itteewoo si wàllu ay produits waaw rawatina produit yu bàyyeekoo fii si sunu réew ndaxte lu tolloog junni wala sax lu ko ëpp si ay taalibe Mouride ñoo boole seen doole amal nag bi lay investissement amit jeexital yu mucc ay ayib ci askan wi ndaxte bokk na si seen ëmm seen i taxawaay di joxe xëy waaw seen mboolem gox yu fasantikoo am nañu seen champ daaru marnaan seen champ madiana seen champ daaru xudus seen champ nindi ñuy waajal beneen yoon seen champ si ndaamaatu bokk na si seen ëmm seen taxawaay lu tolloog fukk ak juróom-ñaari boutique si biir Touba ñu amal ko si at yi di ñëw bu ngeen ñëwee fii si seen champ mbokk yi lépp lu ngeen itte aussi ay produits doon large gamme de produits de consommation yemb na fi rawatina produits yi nga xamante ni mi ngi bàyyeekoo fii si mim réew woote leen gaaw si 33 965 29 29 ak seen chandal su gënul du jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel seen site internet ñu ngi leen di ziare bu baax a ci nuyoo bi saaxibul sëriñ sëriñ Seex moom sëriñ Saalihu Mbacké di ko ñaane yàlla gudd fan ak wér waaye noonu la ñuy nuyoo mboolem nga xamante ne ñu ñuy bàyyi xel te dañu safoo seen émission baatu askan wi nag di kaat tey jile fii ci Touba ci benn quartier boo xamante ne bëri na ñoo xamante ne duñ leen ko présenté ndax quartier la boo xamante ne ne quartier historique la boo xamante ne yàgg na ci biir tubaa muy quartier bi ñuy tuddee Sourax ñu ñëw fi tey fekk fi benn association boo xamante ne association la waaye dinañ gën a xam li jëm ci biir association bi mooy association takku jëf ñoom la ñu fas yéene ànd ak ñoom waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne moom mooy seen diggante ak askan wi waaye tamit ci li waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne moom mooy seen activités yi nga xamante ne moom la ñu fas yéene leeralal ñu ko bañ xam ko kon xam naa dañuy feggoo rek ki nga xamante ne moom moo di euh, Serigne Cheikh Fall moom itam di rais bi muy président bi dama koy jox kàddu gi rek mu nuyoo mu nuyoo pare ñu doog a ci rajo tontu yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Moustapha ñu ngi lay ziar di nuyu Serigne Sidi Maxt euh, sëñ Mountakha Mbacké xalifa général kullu murit ñaan suñu borom subhanahu wa taala taxawaayam di nuyu tamit euh, mbokki association takku jëf ak mbokki soro gépp kenn ku ci nekk lay nuyu sa tur ak sa sant la jox sa wàccuwaay euh, di la wax dalal ak jàmm fii ci soro jërëjëf mm. Fall akasa min Serigne Cheikh Fall ilaa Serigne Cheikh Fall rek lañ koy tuddee ndax xam ngeen ne ñoom ñaari Serigne Fall Cheikh Fall ñoo ma ñoo ma ñoo ma ñoo ma wër muy ñaari paleen yaakaar naa émission bi tey dana doon doy waar diggante benn ngembe ñaari paleen moom dina yeme euh, sëñ Fall ma jox la kàddu ñu nuyoo. asalaamaaleykum wa ñu ngi leen di nuyu bu baax di jiital ci nuyoo bi saahibul fadila Cheikh Mouhamadul Muntaxal Bachir di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér waaye doon li ñu nuyoo suñu bund ci Serigne Touba di Cheikh Moustapha Mbacke Asubari ibnu Serigne Cheikh Mbacke genn fànn di nuyu njabootu Daaru Xuddoos gépp di nuyu waa Sura gépp di leen ndokkeel di leen ziare di nuyu waa association bi waaye olof daf ne ab dëkk boo fa ndukkee da ngay dëkk ba du nuyu suñu suñu waajur yi nga xam ne si ne moo yor quartier bi di Serigne Cheikh Diaw moo xam ne mooy chef de quartier moom jël sunu nuyoo teg ko ci loxoom mu joxul ko waa koñ bépp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Cheikh Fall seen différence nag mooy fonction yi nga xamante moom lañ amee ndax bu ma juumul kii mooy Serigne Cheikh Fall bi nga xamante ne moom mooy président bi euh, Serigne Cheikh Fall mi moom lañ chargé lépp lu jëm ne dana leeral li nga xamante ne moom mooy liggéeyam ci kanam tuuti euh, tey ñu daal di commencé ci ki nga xamante ne moom mooy Serigne Cheikh Fall mi nga xamante ne moom moo géré li nga xamante moom moo di euh, président bi Serigne hmm. xam ak sosoom ak ni nga xamante ne noonu la sosoo waaye tamit ci yan jamono la jërëjëf sëñ Moustapha euh, association bi mi ngi tudd association takku jëf association bi ñu ngi ko sosoon depuis jamono 2008 ci 2008 boobu ci lañ am suñ récépissé sos gi nag mi ngi jógee ci ñun ndaw ñi nekk ci gox bi rek ñu booloo nekk benn bokk lépp ci lañ xalaat waxtaan ba xam ne jaadu na ñu taxaw sunu gox bi nga xam ne moom leen dëkk taxaw gi nag mënuñ koo jaarale ci dara lu dul créer structure boo xamante ni structure ndaw lay doon lëkkale ndaw ñi fi nekk ñëpp ñu mën a taxaw ci ci gox bi. Euh, sos bi ci noonu la jógee ñu sos ko nag def ci procédure yi ñu def ba jot suñu récépissé. Mhm. naan association association bu légal la. Mhm. Euh, am na récépissé am na reconnaissance. ci jamono nga jàpp ne moom la woon. 2008. 2008 récépissé bi 2008 lañ ko jot. Mhm. boobaag léegi yan activité mooy yi ngeen jot a def. waaw xam nga association toujours activité yi nga mën a def. parce que association bi d'abord association ba association à but lucratif la maanaam association boo xam dañ koy fondé ngir di ci am luñ ciy ut. associ activités yi ñu ay activités yoo xam ne nii euh, éducatif socio éducatif activité ci côté sensibilisation sur la santé. ci wàllum wér-gu-yaram. beneen bi mooy ci nettoiement comme ni nga ko xamee ci association yu bëri ci dëkk bi noonu la ñu def seet seetal. beneen bi tamit lépp loo xam ne rek. gox bi soxla nañ ko te ñu man ci dara. a ñu war ko mën a taxaw rek ñu dem fexe ba taxaw. loolu mooy principalement activité ngeen association bi. dafay def taxawee noonu waaw. sëñ moom delluwaat ci moom sëñ euh, bi ngeen di sos association bi ci ndigalu kan la woon si euh, jamono yooyu ndax jot ngeen dem ci kilifa ngir gaaral ko ko lu mel ne chef de quartier ko wala yu mu demee. waa bi ñu koy tàmbali nag te ñu ko waxtaan nañu waxtaan suñu biir mm-hmm. mu nekkoon ay gone yoo xam ne dañoo judd màgg jaar fu ñu war a jaar fépp dugg ci daara alxuraan yi génn dem ci école yi. bi ñu dem fi ne jamonoy vacances na ñuy dajaloo waxtaan suñu biir xam ne lii luñ lu lu mën a antu la. te koñ boo gis mu développé jeunesse ba fa nekk ñoo ko développé. ñu waxtaan suñu biir biñ ci waxtaanee amoon na suñu mag ju fi nekkoon féetewoon ñu ak mag ñu ko wax Ablaye Fall dëkk Darou Salaam Darma. bokkoon ci lu bari ñu doon waxtaan ak moom ci wàllu woowu. looloo loolu lañ doon waxtaan ba mujj gi ñu déggoo ci. forme association bi. biñ ko formé nag ñun ne comme ay boroomi xel ñoo fi nekk. am association ciw tur rek amul njariñ nañ dem wuti jaar fi ñu war a jaar fépp ba am récépissé bi mën koo indi. ñu xam ne lu mën a xew dañoo légal. looloo waral ñu jël ko dem yóbbu ko ministère. dugal ko mu génn ñu jaar fi ñu war a jaar bépp ba jot sunu récépissé. nekk ko indi ko ci koñ bi. Mm-hmm. ànd ceeg waa koñ bi nag ñëpp. Mm-hmm. muy jeunesse bi ne ci koñ bi yëpp. Mm-hmm. lu ñuy def ñoo koy defandoo lu ñuy waxtaan it ñoo koy waxtaanandoo. lu mel ne kilifa yi nga xamante ne ñu ngi ci koñ bi kan ak kan ngeen jot dem a ni ñu ko ni ñu ko ni ñu ko ni ñu ko gisee ñoom bi ngeen xam nga ñun suñu koñ am na ci côté boo xam ne suñu borom daf ñu cee defal taw tawféex muy maanaam xam nga tur association moom day loo xam ne da ngay kayit bi am ko ngir loolu mm-hmm. mais jeunesse bi ne ci koñ bi mm-hmm. tey ñu bëree bëri. suñu borom dafa dogal nekkuñu fi sax tey dañoo nekk Dakar ñi nekk bitim réew waaye boo bu fekkoon ñëpp daje fi nga fekk ñu fi nii la ñu toogee ensemble ñun ñëpp xàmmewuñ ñu gone yi am 12 ans ba 30 ans ñëpp ñooy bokkandoo toog yàlla ñu boole ci koñ ñun nekk ay jeune ab jeunesse boo xam ne dañoo bennoo suñu parents yi gis ñu toujours nag ñu ñu koy wax ci seen i kàddu maanaam fierté bi ñu am mooy bu leen ñoxoon ku nekk dem ci beneen ko ñu wut fa ab xarit mhm. mais da ngeen a àndandoo nekk seen biir mhm. defaat ay xarit ci seen biir ku ci nekk ab xaritam mhm. moo newaat ci biir association bi association bi kon génnul dara génn ko am na kilifa yu ñu ci waxtaane ku mel ne Baye Mour Fall docteur ku ne xam na ko Fall docteur mm, médecin chef bi nekkoon Kër te léegi mu nekk Lansar ah. moom daanañ ci laaj ay xalaat mu ñu ci daa jox ay xelam parce que moom macha allah ku nekk xam nañ xam-xamam mm-hmm. ak ni mu mel ci wàllum administration mm-hmm. lu ci bari daan nañ waxtaan moom mënu ci jox kalaatam ba tey seen diggante ak chef de quartier bi laa bëgg parce que xëy na chef de bi moom la administration bi dénk bi ci dëkk bi teg loxo loxoom ci ci liggéey koñ bi mu war say saytara nan ngeen di àndee ak moom. waa ànd gi mooy mag bu tolloo feneen fi olof Njaay dafa na ne mm-hmm. ndaw bu demee ba sol dàllu waajuram mu jot ko daa war a fas yéene def la waajuram doon def. Euh, chef de quartier ku ne xam ne Touba gi ak ni muy doxee ni muy fonctionné aw tur la rek mais bu fekkee ne lu ñu war a jug ay activités yu ñu war a def jeunesse bi ñoo ko mën mais mag mënu ko mais lépp loo xam ne dafa war a juge ci kaw ñëw ci ci moom danañ ci dem waxtaan ak moom bu fekkee loo xam ne lu jeune war a def la dañ ciy jug ñu ànd caag moom def ko liggéey ko ba mu jeex bu fekkee lu mu war a xel ak xalaat la tamit nag ñu dem ci moom taatan ko xelam a xalaatam mu jox ñu ko boo ko defee ñu ànd ci ak moom. ci li wér waaw d' accord damay daan ci président président ki jiite mbir dana xam la ca gën a aju lu bëree bëri li nga xamante ne li nga jàpp ci li li nga xamante ne association bi servir na ko koñ bi nag. ndax xëy nga ay ndaw ngeen ci koñ bi ngeen juddoo ci koñ bi ngeen ngeen ngeen formé association bi <clears throat> mais nag ak loo xamante ne euh, yéen waa association bi servir ngeen ko koñ bi association bi comme ni ma la ko waxee sur lépp lu waa koñ bi soxla te mu man ko da koy def euh, dinaa ci lim tuuti euh, am nay jamono bari ndaw yi nekk ci koñ bi ay tout tànk ak i mag problème état civil li mu nekkee problème ci dëkk bi ñu amoon ay jafe-jafe fexe nañ ba amoon fi audience foraine boo xam ne dañ ko jagleel waa koñ bi audience foraine boobu yaakaar naa mi ngi ni inscrire nañ ci lu mag quatre cent quatre-vingt-quinze personnes yoo xam ne ñëpp fii la leen utale extrait de naissance mhm. bañ déposé ba mën am seen carte pièce d'identité loolu am na solo xam nga loolu lu am solo la mhm. ñi fi nekk meeru mbootaay mhm. ñëpp xam ne ne ni ñuy participer ci catu dëkk bi macha allah dafa jéggi daay dañ ciy participer bu baax a baax am nañ jamono uti nañ ay matériel ci mel ne ay bale ay brouette ay râteau ay pelle indi ko distribuer leen ko jox leen ko ngir jàpp leen ci acti loolu loolu loolu nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy def en grosso modo daal loolu lépp loo xam daal gax xam nañ ne dëkk bi mhm. mi ngi dugg te ndaw ñu war association bi am ci wàllam bu baax a baax waaw bu ngeen nit la xanaa <laughs> jox sax chiffre exact mhm. mais l'essentiel moom bëri na nit ñu ci nekk peut nag fi nii bari na ci xam léegi ay lañ mhm. ñu ngi jàngi génn ñenn ñi nekkatuñ ci génn dem nañ extérieur ñenn ñi ñu ngi yeneen régions yi di yaxantu mais daal bëri na ay membre bëri na membre bon woote bi sax réew luñ ko parce que période Covid lañ nekk di bañ rassemblement moo tax mu demee noonu. Mm. Ah, euh, yi nekk ci euh, sura. Mm. nga xamante ne ñoom mm. ne dañ leen jàppale ci wàllum euh, koom-koom wala kilifa yi nga xamante ne tamit yàlla dogal na ñu ngi ci dëkk bi. Mm-hmm. wala ñu ngi ci a wax. te yorum association bi ñun ci ay cotisation lañ doon dox. ñun ñu bokk ci association bi ñooy porté volontaire chaque fin de kenn ku ci nekk am loo war a cotiser mu jëm ci kees association bi. Mhm. parce que wolof danaan ku la ku la ku la ku la ku la mënal ak sañal la. Mhm. te association c' est apolitique. Ah, du luy dox ci politique. Mhm. kon bu fekkee toujours da dem ba fexe ba nit ñi di la mënal. ëllëg dana la sañal te loolu lañ ciy daw moo tax toujours am na teewul nag am na ay bonne volonté yoo xam ne mhm. saa suñu def activité danañ dem ci ñoom wax leen ko mhm. seen relation ak mairie bu Touba xëy na jombul ne mas ngeen fa dem demander dara wala ngeen relation bu leen liee yéen waa mairie bi waaw xam nga wax naa la ko sànq mhm. nee naa association bi day xool jafe-jafe yi nekk ci gox bi mu a relaté mairie bi moom dama lay génne lettre bi nga xam ne parce que. d'accord gox bi boo ko xoolee. dafa am loolu fàtte wax ci début bi. Sura dafa bokk ci quartier yi nga xam ne ci biir dëkk bi la nekk bokk ci corniche bi. Daaree Kaamil gi ñuy wax ci biir Sura la bokk. Mhm. amul benn quartier bu ko gën a jege xolu dëkk bi. kon commencé ba de dafa waa fii liggéey da la làngal fii dem na fa ba armée baax yi lépp ci soro la bokk mais nag soro dañ koo fàtte ci lu bari ci jafe-jafe yi bu ma ci duggee waaw exactement léegi ah, ci problème éclairage public boobu mhm. lettre bi yaakaar naa le 31 décembre laa ko bindoon mhm. adressé ko monsieur le maire mhm. di wax ci problème suñu éclairage public ci gox bi mi ngi nii le 31 décembre 2016 ci wér le 27 le janvier mu répondre daal may xamal ne ma li nga wax dëgg la danañ ci jël ay ci diir bu gàtt danañ ci taxaw. 2017 ba tey nag gisaguñ dara. yéen a ngi bay seen waar beneen bi mooy. Mhm. ñëpp xam nañ ne jigéen ñi ni ñuy balee dëkk bi. Mhm. dañoo méritu ñu jàppale leen. ay rado ay ay beneen bu loolu mais mbalit mi. Mhm. dañu am problème tuuri ko. Eh, ma demoon ci mairie waxtaan ci ñoom ba ñu bind loo ma demande. ma bind demande waa UCG. demande maa ngi ko bind le 15 août 2016. la woon waaw. ne leen di dañoo bëggoon sunu gox mbootaay ya fa nekk di bale mm-hmm. waxtaan nañu ak ñoom bañ ñu ñu ñu tombé ci jour yi ñuy bale ay jeudi mm-hmm. waaye saa suñu baleetee dañu am problème lu évacuer mbalit mi mm-hmm. ñu ne ma bindal demande ma bind demande boole ci récépissé association bi lépp mais ba tey France daal loxo den ak mairie rattaxul parce que amul lenn loo xamante ni àq la war ñëw ci gox ñu jox ñu ko amul surtout tous les plans nag. sur tous les plans. d' accord loolu am na solo sëñ ñu delluwaat ci yéen ñi nga xamante ne yéenay dëkk ci biir Sura. Euh, naka ngeen di dundee jafe-jafe yi nga xamante ne moo nekk ci biir Sura. waaw dund gi moom sëñ Cheikh wax na ko léegi xam nga dëkkuwaay ñaar la ci am solo. muy problème mu ndox ak problème mu éclairage. am ah, na ñi leen di ñi ngi leen di benn yoon bu jaar ci 30 ah. xam nga xam nga yoon bii suñu président moo ñu dimbale. parce que kon ndox ngeen fi fekk. président mi toog président Cheikh Fall. Mhm. parce que dafa amoon benn tuyau bu ñu daggoon bàyyi ko fi ndox bi wala ngaan ba def benn géej bu mag fii. Mhm. bi nga xamee ne lii jëmur kër benn site internet ñëw fii. Mhm. ñu waxtaan ak moom. bi ñu gisee loolu lañ xëy suba réagir. arrêté loolu. au moins à chaque fois moom mi ngi jug di dox ci njëriñu maam waa Sura. chaque jour lu ñu yëg ak lu ñu yëgul. parce que ñun ñu jege. xam nañ ci li muy dox bu xëyee ak bu gonte yëpp ci njëriñ waa Sura lay lay dox doxul ci intérêt personnel am suñu su koñ bi soo fi jaaroon guddi lëndëm këris lay def te Touba ñun dëkkuñu foo xam ne dafa isolé wu. ñun suñu digganteeg jumaa ji da koy dox. ñun dara soriwul ci koñ bi. koñ bi fii yëpp boo toogee fii yow gis nga li fi nekk ñun ak jumaa ji ah, diggante bu gàtt la waaw léegi nag loolu bu amee mënuñu am. maanaam mbedd wi leer mhm. di am ay jafe-jafe fan yi sunu soxna yi ak sunu yaay yëpp dañ fay nekkoon di root ba tas. Mhm. waaw ñu ngi ñaanal si usmaan Mbacke Guène Fatma yàlla na ko yàlla gën a dolli tawféex mhm. ñu ngi dégg sax mu ciy wax lu am solo. te loolu dafa jot sëkk nag maanaam ki nga xam si ne moo yor dëkk bi maanaam muy jóg ak tànkam di xool askan bi ci lan la ñuy yëngu. parce que nit ku nekk ñu la nga jiite mbooloo pour nga toog ci sa bureau rek di xaar ay lettre wala lenn. doguma la mais mais yéen ban commune ngeen di wuy ji ndax am commune bu Touba Mosquée ngeen di wuy ji wala commune bu Darou Khoudoss ngeen di wuy ñun Darou Khoudoss la ñu bokk. Darou ngeen dem ci commune bi leer lu xam nga ñun olof dafa léeb dafa dafa léeb ne mhm. kenn du joxe bopp di rocc aw làmmiñ mhm. mais suñu président à chaque fois mhm. fépp fu mu war a def demande moom demande am na fa. xam nga mi ngi bi sax moo tax mu leeralal la mais fekkoon da dugg ak ci yeneen question sax dana leeral parce que ñoom ñëpp amul kenn ku ñu fi demul wax la suñu suñu suñu suñu suñu soxlay koñ bi. parce que ñun bi ñu bi ñu bi ñu wut association bi wutuñu ko ngir suñu bopp mais dañ ko wut ngir koñ bi te koñ bi bu baaxee njëriñu ñëpp la. kon nag nit ku nekk fa nga nekk rek nga mën nga man nga mën a jooytoo comme moom lañ ko dénk te liñ ko dénk lu ñëpp bokk la dafa jot nag tey tey moom mu génn doxal boppam xool mbedd yi ak Touba li fi ne mooy lan. parce que askan bi tamit sonn nañ nag. askan bi sonn nañ ku wax liggéey bi nga xamante ne moom moo di euh, li jëm ci assainissement bu Touba faaw nga laal euh, benn daaira bu mag bu ñuy wax Touba ca kanam. Hmm. ndax am ca kanam ñoom itam mas ngeen fa dem laaj leen ay aide wala ñoom itam seen xel mas na agsi fii ba def fi dara wala meloon. non xam nga ñun dañoo am benn slogan boo xam ne ñun moom la ñu doxee mooy li la Cheikh wax léegi hmm. ñun dañoo gëm ne maam li ñëpp bokk dañ caa a am ndax du lu ñu ñaan du lu ñu taal suñu loxo. Mhm. ndax dañ ne Touba ci kanam Touba ci kanam bu ñu laaj duñ ne dañuy bàyyi waa bu ñu joxe. Mhm. ñëpp la jox ndax ku koy jox sëriñ bi tax nga di ko joxe. Mhm. kon loolu moom duñ fa dem di ñaan di ñaan di ñaan di ñaan de ñun gëm-gëm mi ñu am ak pas-pas bi ñu am mooy lépp lu baax ci koñ bi ñun ku ci deful bu bu ci bu ci euh, mairie deful la ci war ñun suñu propre moyen ak nu mu mën a toll danañ jënd suñuy fukk ak suñuy ba liñ bëgg ci ñu am ko. parce que suñuy projet mooy tey ñu toogee ndax président wax na ko bu yàggul la ñu ciy waxtaan lim ñu mooy bu ñu toogee ab diir bu Touba ca kanam lamp yi egsiwul ñun danañ def suñuy propre moyen ba am ay lamp def ko ci koñ bi loolu ngeen def sax lu baax la parce que xëy na Touba kanam seen doole àggul ci Touba gépp ñu mën faa def lañ fa war a def nekk ak ku nekk si koñ ku jàppale koñ ba jàpp naa ne bonne volonté nga fa a doon kon loolu moom acte bu rafet la président ñu ngi ci bi ba tey association bii nga xamante ne moom moo di euh, takku jëf ji fan nga bëgg mu àgg fa ak fan ngeen bëgg mu àgg fa waaw euh, suñu yéene ci association mooy ñu fexe ba taxawu gox bi ndax bay wolof dana am booy bay da ngay ci sa weewu tànk ba lépp lu fi ñàkk ñu jooytu ko fexe fañ ko war a jooytu jox ba maa la koy wax sànq dama répondre toujours nii nit di def di génn di marché dox ñaxtu mën nañ ko waaye dëkk bi day dëkkub teggin te ñun suñuy suñuy li ñuy dox dañ koy jaar étape par étape fi ñu war a jaar la ñuy jaar suñu waree bind demande dañuy bind demande bu ñu waree def nangam def nangam ba étape yëpp franchir ñu doog dem ci média di wax mm-hmm. gis nga yaa ngi tudd sànq tali tali bi ci programme Promoville la bokk te Promoville programme de modernisation des ville la dafa ñëw pour améliorer suñu cadre de vie mais nag bii ñoom dafa ñëw pour dégrader suñu cadre de vie. pourquoi danaa ci ñëw. xam nga Promoville président mi ngi ko lancé avec deux cent quatre vingt milliards. ñu bëgg a def trois cent kilomètres de voirie ci Sénégal. ci Sénégal ñun d' abord dañu ñëwoon deux voies ngeen di am deux fois deux voies muy vingt six kilomètres. Mhm. parce que benn bu nekk treize la. malheureusement 13 kilomètres la ñuy defal waaye bi Promoville bi ñëwee parce que maa ngi leen ne objectif Promoville loolu la fexe ba population bi ni muy yokkoo urbanisation bi ni muy demee ville ni ñuy yokkoo mu ñëw appuyer leen ci programme mais bi ñu ñëwee entreprise bi nga xam ne moo yor travaux muy CSE moo gagné marché bi yor travaux yi amul benn dëkk boobu entreprise wala dugg di def travaux voirie te amul te doo jaar ci ñi nga a jaar waxtaan ñoom mhm. fii ci quartier bi da laa lay wax mhm. amul kenn ku fi xam entreprise wala nangam te ñu ñëwee waroon nañoo jaar ci village bi jaar ci délégué quartier yi mhm. fépp ñu wax ko lañ ca war def ñu def ko ba ñu ñëwee li ñu jëkk a mooy bépp tuyau boo xam da ngaa jéggi woon trente bi dañ ko dagg ci avertise wuñ kenn déedéet amul kenn ku ñu avertise ci loolu loolu mooy njëkk a nekk di yoon dañu xam ne Tuubaa tax ñu def ko waaye am na fu ñu ko doon def danañ gis leneen bi ñu ko daggee ba pare au lieu ñu raccordé ñu suñu tuyau defuñ ko dañ ko dagg sànni dagg sànni laa la wax ñu tëraloo ñu fi ab tuyau bu 160 diamètre baaxul parce que un tuyau bu 160 mënut a évacuer ndox ci gox. mënu ko mënu ko mënu ko. te tuyau bi ci koñ bi ci mbedd mag bi la yem defuruñ ay tuyau secondaire xam ñuy dugal ndox mi ci biir koñ yi. Hmm. beneen bi mooy tuyau bi amul profondeur boo waxee woon 0,50 mètre jot ko. teew ah boobu mënut a yóbbu ndox. mënut a te entreprise bi bi mu koy dagg. waru ko woon a dagg lu dul dañoo lijjanti ñu fu ñu amee ndox ba pare mu koy doog a dagg mais ba fi may waxee lijjanti wuñ sax ci yooyu. yéen itam waaw. Mm-hmm. yéen itam euh, ndax xëy na waxtu duñ ko may mais yéen itam est-ce que nag jotul ngeen dem ci kilifa yi nekk ci dëkk bi c'est bokk ci suro boo koy xool jege na gede ngeen dem ci ko ci ne sëñ Bass Mbacke Abdou sëñ Bassirou Mbacke Abdoul wala ngeen dem ci euh, kenn ci kilifa yi nga xamante ne ñu ngi fii ci biir gede ñu jàppale leen ci loolu. waaw xam nga xam nga bi mu amee man dem naa ci bureau monsieur le sous-préfet monsieur Mar mm-hmm. maa ngi koy saluer de passage exposé naa ko problème bi mu dul jël téléphone am un certain Bamba moom moo fi nekkal offort fii ci dëkk bi ma expliqué ko Bamba mais ba tey dañoo ba ci ba mhm. da nga ko ci waroon raccordé. ba tey raccordé wu dama ne la waruñu woon a samp tali. toujours dañoo defaral bañ am bi wala cité bi sax quartier bi amul ndox. kenn amul fi amul guddi amul bëccëg. loolu beneen beneen problème bu garaaw li ñuy bañ nag mm-hmm. fa la nit nar a egg mm-hmm. tali bi la ñu bañ ku ko laal mm-hmm. mais ñun bu ñu naree xañ ndox bu magal danañ dagg tali bi déedéet loolu loolu loolu du ma leen ko ah, wax da nga wax ne yéen ci ndigal ngeen di dox dëkk bi dafa am yoon woo xamante ne fa lay jaaree parce que euh, autorités yi ñi ngi fi waaw sëriñ si ñi ngi fi sang si nga xamante ne ñoom lañu yàlla boole ñi ngi fi kon yéen balaa loolu jéem leen a dem ci ñoom gaaral leen ko ba pare xam nga sa Moustapha ñii dañoo doxalul respect ci seen diggante askan wi li ñu def fii amul benn dëkk buñ ko sañ def ci Sénégal mu jig leen dama ne la avisé nañ sous-préfet en tant que autorité parce que am na cadre de concertation bu sëñ bi euh, créé sous-préfet ak sëñ Ousmane Bakk ñu nekk ci wax nañ leen ko ñu ne dañ jël saafara waaye dama ne la Promovilles président ba mu koy lancé pour améliorer cadre de vie nit ñi la ci lu wér ñu lu wér kon ñii de vie d'accord loolu loolu am na solo xëy na jombul kilifa yi ñu ngi lay dégg incha allah rabbi danañ hmm. ci a rebondir danañ dikkaat jiwooy def ay pexe ba nga xamee ne que li nga xamante ne moom moo war a am am lépp nekk ci yoon sëñ Cheikh sécurité koñ bi wóob wóobi guddi bëri na wala bëri fi wóob sàccee wala waaw loolu moom du fi jóg du fi ba tey kon gaa parce que ñu ngi bëgg a dee hmm. pay tey ku nekk xam na ne fii dëkk koñ bi yëpp ay njàmbur njàmbur lañ hmm. même famille ñoo fi dëkkee mais kenn munu fi yar xar kenn mënu fi yar leneen parce que loo fi yor bu subaa ñu sàcc ko. Mhm. télé bu baax mënoo ko yor sa saal. Mhm. parce que boo ko yoree ñu sàcc ko. Mhm. kon tamit nit buñ koy wax sécurité tak ab dëkk bu koy wax sécurité moo tax ñu di ko wax. mais yor koñ boo xam tey yow ginaar sax mënoo ko jënd bàyyi ko sa biir kër loolu dafa metti kon nag ñu ñu ngi sàkku ñi nga xam si ne ñooy kilifa yi ñu dimbale ñu. kenn mooy kaddu yi nga xamante ne moom ngay tàggatoo ak yi nga xamante ne bëggoon nga ko wax te xëy na suñu xel àggu ca. waaw li gërëm waa koñ bi rek sant leen surtout sunu parent yi di ñaan ñu yàgg ñoo jiite ñu yàgg topp seen ginnaaw di sant bu baax sunu yaay ni ci koñ bi ñoom ñëpp di sant bu baax sunu soxna yi ñoom tam di leen wax ñoom tamit kenn ñoom di sant maam chef de quartier bu baax a baax ci njiital Baye Cheikh jaw di sant suñu papa baay Modou Fall docteur di gërëm koñ bi ñëpp te wax ne comme ni ko suñu président waxee rek dañuy tàllal loxo suñu maire moo xam ne si ne moo fi nekk moo xam ne sora ci gox yëpp la bokk kon nañu taxaw jàppale ñu ndax ñun amuñu lu koñ bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal nag site bi nga xam si ne mooy Rafaay TV di ñaan ci barkeb sëriñ bi tax ngeen di def euh, suñu borom yëpp fépp fu ñu dégg ab télé rek yàlla na suñu borom defal ngeen dégg fa ci barkeb sëriñ Touba jërëjëf jërëjëf Serigne Cheikh Fall Serigne Cheikh lay wuyoo moom lañ chargé lépp lu jëm ci wàllum communication ci biir euh, fii nga xamante ne moom moo di euh, association bii di takku jëf bu sura monsieur le président xamaa naa kaddu yi euh, doyaluñ ci sax ndax mm. njariñ yi nga doon génnee ba am na solo lool. Mm. lan mooy kaddu yi nga xamante ne moom ngay tàggatoo ak tamit loo xamante ne sax sa xel àggoon na ci wax ko te sama xel agu ci laaj ko. waaw man li ma lay wax rek sëñ Moustapha sura dama koy adressé direct à monsieur le maire Soro ci dëkk bi la bokk ni ci yeneen quartier yi bokki gis nga dëkk bi fépp fu waay nekk taalibu Sëñ Tuubaa nga. est-ce que discrimination wóorut am ci lenn. ci lu wér te nag am na ci dëkk bi. ni ñuy séddee yeneen quartier di ko séddee yeneen gox nañu ko séddee. ndax ñëpp Sëñ Tuubaa doo nga tax ñu wuyu si. Ah loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax. Mm-hmm. Euh, beneen bi toujours euh, ñu wax rek

lii alerte la. Mhm. premier pas rek lañ posé. dinañ ko dinañ ko solutionné gars yi dinañ. amul solution danañ passé à la vitesse supérieure. ci li wér ci li fii ak màggal daal moom. Mhm. moom bañuñ ci dara moom ndox mi na ñëw. Mhm. wala luñ bëgg danañ jàmmaarloo ñoom. ci li wér. Euh, beneen bi tamit comme ni ko chargé de communication waxee di sant bu baax ñii nga xamante ni ñoo ñu wuy si. parce que woote yow mën waaye ñu wuy si la ñoo jafe. ci li wér. dañ leen di sant bu baax a baax parce que temps dafa jafe. képp ku bàyyi dara rek ñu wuy si la rek. kooku amoo fayam. Mhm. di leen di sant bu baax a baax di leen remercier sunu parents yi fi nekk ak sunu soxna yeeg sunu mag yeeg sunu rakk yeeg sunu yaay yeeg ñëpp rek bàyyiwuñ kenn. Mhm. commencé ci délégué de quartier ba ci suuf ñu ngi leen di a a a mhm. gën a may courage. pour li def ñu gën ko mën a yokk. te saa suñu woote nag wax dëgg yàlla duñu tànqamtu. kon loolu dañuy gën a jox courage. moo tax bu ñuy yendu ci àll wala ñu fay fanaan ngir quartier bi sax danañ ko danañ ko danañ ko def macha allah euh, beneen bi tamit dala sant yow vraiment ci disponibilité bi ak opportunité bi nga xam ne moom nga ñu may euh, vraiment ñi ngi leen baax a baax di leen ci gërëm aussi euh, jërëjëf euh, mbokk yi kon loolu moo nekkoon émission bi nga xamante ne tey baatu askan wi ñëwoon na fii nga xamante ne moom moo di Soura euh, fekk si fii ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa association takku jëf bu Touba Soura 2008 ba léegi ñuy doxal te gis nañ ne wax dëgg yàlla seen activité bari na ah, te ñoom itam tamit ñu jara bàyyi xel lañ dégg ngeen seen i jàmbat jëmee ci maire bi lépp luñ bëgg ñu jàppale leen ci lu mel ne am ndox lu mel ne éclairage public bi waaye lu mel ne tamit sécurité bi ak lu mel ne hôpital bi nga xamante ne bëgg nañ fa benn euh, ambulance ak ñu demee yéen déggandoo lépp li nga xamante ne wax nañ ko sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp yëpp di ñaan yàlla yal na yàlla saafara ko ah, di nuyu baax a baax tailleur bi nga xamante ne moom ma ñawal ñaw bile muy euh, Serigne Diop nekk fële ci a commercial Serigne Mourtada waaye sant baax a sama doomu ndey ndax yaakaar naa ku la defal lu baax boo ko waxut muy lim ay noolam sañ na la caa boole ah, euh, ma ko jox maa ngi koy nuyu bu doole taxaw doolu ko sàmm doolu ko may euh, jàmm ju bëree bëree sant ñëpp Euh, ci cameraman ci caméra bi ci caméra bi Serigne euh, Bada moo ci nekk waaye may nuyu baax Murtada ak mboolem waa Rafa TV sant ñëpp gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi Africa Tuy le ñëw na ci réewum Sénégal nekk fee ca Soprim extension villa numéro 264 ci wetu rond point case ba di spécialiste ci bépp xeetu tuile boole ci tamit caro di représentant exclusif bu industrie Coto Posagno nekk fee te Italie di jaay ak ay tuiles yu am lool qualité baax lool ci seen kër di leen defal fourniture ak éventuellement livraison ci fépp fu ngeen dëkk ci biir Sénégal Africa Tuile ak Caro tamit am na personnel bu xereñ lool nekk seen disposition 24 heures ak 24 Africa Tuile ak karo ma nga nekk ca Parcelles Assainies Soprim extension 50 mètres balaa nga yegg case ba képp ngi nga xam ne nag dafa bëgg jokkoo ak Africa Tuile ak Caro na jël ni xeetu numéro téléphone yi mooy 77 510 81 52 wala 33 835 47 28 site web ba di Africa. tiire ak Africa tuile ak caro ci biir réew mi seen coono jeex na ci wàllu tuile ak caro asalaamualeykum mbokki Touba seen champ di réseau de supermarché yi bii nga xamante ni mu ngi bàyyeekoo si société d'investissement Mouride Rital Holding SAS seen supermarché bi nga xamante ni moo jóg taxaw tem indi leen lépp lu ngeen itteewoo si wàllu ay produits waaw rawatina produits yu bàyyeekoo fii si suñu réew ndaxte lu tolloog junni wala sax lu ko ëpp si ay taalibe Mouride ñoo boole seen doole amal nag bi lay investissement amit jeexital yu mucc ay ayib ci askan wi ndaxte bokk na si seen ëmm seen i taxawaay di joxe xëy waaw seen mboolem gox yu fasantikoo am nañu seen champ daaru marnaan seen champ madiana seen champ daaru xudus seen champ nindi ñuy waajal beneen yoon seen champ si ndaamaatu bokk na si seen ëmm seen taxawaay lu tolloog fukk ak juróom-ñaari boutique si biir Touba ñu amal ko si at yi di ñëw bu ngeen ñëwee fii si seen champ mbokk yi lépp lu ngeen itte aussi ay produits doon large gamme de produits de consommation yemb na fi rawatina produits yi nga xamante ni mi ngi bàyyeekoo fii si mim réew woote leen gaaw si 33 976 29 29 ak seen chandal su gënul du